ci veille ak alerte te veille ak alerte boobu ngeen def moo waral la yenn saa bu comportement yi commencé wàcc ngeen taxawaat wax nit dina leen mere mais bu leen mere dafay jum parce que ci xeex bi ci ngeen bokk li ñuy taxaw ni di wax nit mën na dëkk ba hors du pays tey jii à travers les les médias l'information la communication mbokk góor gii nit ki nekk Italie nit Australie wala feneen di ko seetaan te bu doon ñun ak ñun du dem am na impact bu ngeen di joué moo tax may étudier tribune bi pour waxaat ak yéen pour waxaat ak askan bi ne nañ sàmmonteeg port masque ça c' obligatoire ku ko takkul ci yoon commandant brigade daf la war a jàpp parce que loolu ci lay tax mbir mi du law ci la bopp leneen li ñu sorante leneen li ci tegu loxo yi muy set parce que li nguur gi tek fi newuma day continuer parce que gënalul nguur gi li gënal nguur gi moy fièvre bi arrêté wu pour ñu delluwaat seen activité té lolu bu féké ni ñu dañoo yafus li dina fi yag nekk té bu yagé aussi la crise là elle peut être lourde de conséquences dans les 4 5 6 mois à venir té lolu